malheureusement nag daf ci am poñ yoo xam ni du poñ yi gën a rafet yoo xam ni dafay xaw a gàkkal penc bi ni muy doxee te yooyu gis nañ ci ay mbirum jigéen ñu ñu sàkku wala góor ñu ñu sàkku ay jigéen ñu ñu rey wala góor ñu ñu rey euh, ay ñi ñu jël seen alalu jàmbur ay accident circulation yoo xam ni dafa tegu ci ay ñàkk respecte ak euh, charte yi nga xam ni moom moo yore code de la route donc yooyu tamit dafay nekk loo xam ni war nañ ci xalaataat ba fexe ni bu ñàkk tamit mu bañ a am ci proportion dayoo bi nga xam ni moom la actuellement boo gisee dëkk bu mel ni penc mu mel ni Sénégal euh, fitna yu mel noonu violence yu mel noonu di fi am dañ koo mën a expliquer ci raison yii baat bi nga xam ne moom moo leen di tënk ñoom ñëpp mooy baatu sori sori bu njëkk mooy sori bi nit ki sori kër gi bu njëkk da nga daan jege kër gi danga daan nekk ci kër gi ci kër gi lañ la doon waajale def ci yow yenn jikko yoo xam ni boo pare yenn yi doo ko rus waaye danga koy jomb wolof day différencier rus ak jomb xam nga ki jomb mooy ki ñu yar ki rus mooy ki nga xam ne day xool nit ñi dañ koo xool rek moo tax muy def lu baax donc bu ñu la yaree ci euh, ci kër gi ba pare ki yow boo paree da ngay nekk nit ku mat nit ku sotti yenn yi di nga ko jomba def te boo xool yenn meurtre yi am maanaam chauffeur bi nga xam ni jàpp nañ ne moom moo euh, rey euh, jigéen bi ko doon employé boo ko dee xool lu jege woo la boo xoolee meurtre bi nga xam ne moom moo am Tambacounda jigéen boobu ñu rey foofu boo xoolee ki ko rey ku jege kër gi la donc yooyu daf lay wan ni am na problème quelque part parce que nit koo xam ne dañuy dem ba boole la ci biir kër gi ba nga bokk ci biir kër gi ngay dem di def loo xam ni sóoraale ko woon ci yow c'est-à-dire que mënoon na jóge fu nekk ba mu des ci yow kon loolu daf lay wan ni kër gi ni mu bindoo war nañ koo xoolaat donc pour man mooy premier sori deuxième sori bi mooy sori bi ñuy sore ay jikko yu rafet ak ay baax parce que ab pénc ay jikko ak ay baax moo ko yor jikko yooyu dañoo commencé di dem benn par loolu nag li ko waral boo ko dee xool nit ñuy jëflanteeg bitim réew la euh, suñu système éducatif la nit ñuy yaree la euh, li ñuy gis euh, mu fi am ak yàqu-yàqu yoo xam ne suñu suñu suñu ñun ci suñu bopp ñoo ko mëbët parce que mënuñu continuer di wax naan ñaawtee fi fi am yëpp ñeneen ñi la ñun la donc dañoo sore yenn jikko ak yenn baax yi beneen sore bi nga xam ne moom la ñu sori moom mooy sori alal sëñ Moussa Ka dafay wax ni ñàkk bon ci waaju baax waxuma ni nag ni ku ñàkk rek dangay def ñaawteef mais ñàkk dafay indi dafay indi situation yoo xam ne dafay compliqué ci nit ki donc loolu dafay laaj tamit quelque part ñu defar ay politique publique yoo xam ne dañuy xeex ak ñàkk dëgg dëgg dëgg te xeex ak ñàkk nekkul di yëkkati xaalis di ko may nit loolu sarax la xeex ak ñàkk mooy nga fexe ba nit ñi ñu am ci li ñu jàpp nga xam ne dinañu mën a dund ak ngor dinañu mën a dund ak dignité parce que ñoom dañuy liggéey seen liggéey la muy meññ ci loolu la ñuy dundee seen bopp loolu tamit am nañ ci ay jafe-jafe maanaam sori nañu am am dafa am ñoo xam ne dañoo sori am am dañoo ñàkk am ñenn ñoo xam ne nag dañoo jël aakimoo lépp ñëw daal di jël lépp ñi ci gën a tuuti war a dundee loo xam ni lu lu ñàkk solo la mu nekk lu metti pour ñooñu bi nga xam ne nag moom moo ci des moom mooy euh, li nga xam ni mooy li ñuy wax amortisseurs sociaux c'est-à-dire que su penc boo gis dafa am yoo xam ne ñoom ñoo koy téye ñoo xam ni bu ñu xoolee ci ñoom rek wala nga fàttaliku leen rek di nga xool fi ngay teg sa tànk ñooñu danga leen di sóoraale mooy ñooñu ñuy wax ay amortisseur mais ñooñu nag bu ñu demee ba nga xam ni sóoraale te wuñ leen parce que ñoom itamit dañuy def yenn saa yenn ñaaw téef bu boobaa dafay xaw a doy waar parce que da am kenn kenn koo xam ni ci moom la ñuy xool pour dellu siwaat suñu bopp donc loolu moom moo daje ci pénc mi indi yenn ñaawteef yi te boo ko dee xool yenn ñaawteef yëpp mi ngi lalu ci wut alal maanaam yaa ngi rey pour wut alal mi ngi aju ci gis sa bopp xam nga euh, seetu seetu dafa yàq lu bari ci suñu penc bi tubaab bi moo ko fi indi ci traite des esclaves lañu ñu indi seetu dañ daan jël seetu di ko jëndee suñuy maam seetu bu xasee ba am rek nit ki day gaaw a gis boppam gis nga ni ngay gisee sa bopp ci seetu noonu ngay gisee sa bopp ci neneen ni kii li mu wax ni daf maa yàpp dem seetu jiwaat lan moo war a tax mu lem dañoo teel a gis suñu bopp loolu dafay nit mooy indiwaat baax yi ma doon wax valeurs yi nga ma doon wax yi nga xam ne ci la ñu doon yar tënkuñu ci ñoom ñoo dem ba xaw na sax nga xam ne léegi nit ki day teel a gis boppam génn fetal tiire nit day ñàkk yaakaar ni bu reyee diw jël ci moom alal mooy cas bi nga xam ni amoon chauffeur bi rey patron ñu yaakaar ni alal wala nit ki bëgg a sàkku doomu aadama bi comme cas bi amoon Tamba dem ba mujj koo rey faf yooyu yëpp daf lay wan ni boo ko tënkee mooy jikko maanaam jikko yi nga xam ne dañ koo amoon démb ak bërki démb yar bi nga xam ne moom lañ doon yaree ba démb ak bërki démb moom moo xaw a nasax moom moo wàññeeku doole ñu jël leneen nag daal di koy jiital te loolu ñu jiital mu ñu indi ci digg dëgg sarax bi waaw loolu yëpp dafay indiwaat ci yar moom mooy gis sa bopp bi ma doon wax maanaam nit ki wax la lu lu naqari nga gis sa bopp loolu dañ daan yaree nit ki façon yar boo xam ne nit ki dina la wax lu naqari sax nga jéllale nga jéggale philosophe bii di Platon dafa wax nul n'est méchant volontairement maanaam ki nga xam ni dafa def lu ñaaw kooku dañ ko war a yërëm parce que bu xamoon du def lu ñaaw ki xam lu rafet rek lay def parce que lu ref lu rafet moo am bénéfice philosophe bi di Pascal dafa ni nañu def lu baax rek nee na même boo gëmul yàlla defal lu baax cest à que def lu baax moo am bénéfice parce que du la réer mukk jëf lu baax du réer donc ñu dellu waat ci li maam jàngale maanaam jéggale ak jëlale yenn saa yi da ngay nekk sa kër sax dégg fa loo xam ni neexu waaye nga daal di jégale wala nga mel ni ku ko déggul nga daal di jëlale euh, foo gis ay nit nekk yendu fanaan fa ci jàmm c'est que am na ku dégg lu ko naqari mu muñ ko walla ku gis lu ko naqari mu noppi ci waaye bu fekkoon lépp lu ma naqari ma daal di koy génne wane ko bu boobaa du ma mën a yendu fenn ci jàmm loolu nag dafa laajaat ñu yaraat suñu bopp moom laa wax léegi ci ay baax yaraat suñu bopp ci ay jikko te jàpp ni doomu aadama màndarga la boo xam ne bu am solo bu ñu war a jox cër maanaam Moussa Ngom woykat boobu dafay wax nit mooy ndabal yàlla maanaam loo def ci nit rek defal jàppal ni yàlla mooy nangu ñenn yalwaankat yi dañ naan yéenay joxe yàllaay nangu loo def ci nit jàppal ni yàlla mooy nangu kon defal lu baax rek donc loolu yar la nag yar bi tamit dafay baax ñuy fàttali nit ñi dee nit ki bu fàttali koo dee dina xam ni fii ñu ne dañ fiy jaar rek dañuy dem si yoon moo tax ñuy wax ni. compte bancaire baax na lool waaye compte bàmmeel tamit baax na donc del def ci sa compte bàmmeel te def ci sa compte bàmmeel mooy jëf yu baax jëf yu rafet yi ngay def di jàppale doomu aadama yi di wax dëgg euh, di am ay gëm-gëm buñ la tooñee nga mën a jéggale c'est vrai que nit nag nit la yenn sooñ yenn saa ñu tooñ la nga gis sa bopp waaye nag ñu def ci yow ay baax yoo xam ne mooy mën a tax lu mu naqari naqari naqari nga mën a taxaw mag ñi dañ naan bu bu la dara naqaree dëgg dëgg dëgg demal nga jàpp ci gis nga temps bi ngay jàpp ji dina tax leneen dugg ci sa xol ba nga fàtte loolu mais euh, nekk nañ ci jamono boo xam ni euh, dañu nekk ci société compétition dafa mel ni dañuy course ku ci nekk yaa ngi waxal sa nit lu sa moroom lu ñaaw ci barabu yi ku ci ne yaa ngi fexe sa nit def sa moroom def erreur ba nga exploité erreur boobu euh, ku ci nekk yaa ngi ni ah ñaw xamoon naa ni dina yegg fii ñaw boobu moom moo indi problème ci suñu penc mi moom moo indi ab xëccoo ab ñiir ñi euh, xëccoo euh, ngir xiiroo ak ŋaayoo moom moo indi euh, ñu ñàkk aman yërmande ci suñu biir ci te te suñu biir la ñun ñëpp te mag ñi dañ lay wax ni fii koo fi gas tuuti rek gis ni ay bokk ngeen mais loolu ñun ñëpp xam nañ ko mais dafay mel ni suñu dund bis bu ne dañuy fàtte loolu maa ngi fexe ba nit ki def erreur maa ngi fexe ba nit ki Euh, fa muy liggéey ma ma mokk ma bokk ak moom liggéey de mais maa ngi souhaité mu def erreur ba ma exploité ko mais loolu dafa nekk loo xam ne lu doy waar la loo xam ne war nañoo xeex ak moom ci pénc mi te jàpp ni pénc mi ñun ñoo ko bokk devise du Sénégal dafa wax ni un peuple un but une fois devise boobu Sénégal ak Mali ñoom ñoo ko bokk un peuple un but une foi tey jii boo delloo même ci tarixa yi nga xam ne ñun moom la ñu gën parce que l'islam sénégalais c'est un islam confrérique quatre-vingt-quinze pour cent population sénégalaise ay jullit la ñu mais presque quatre-vingt-quinze pour cent yi ñu ngi ci ay tarixa tarixa yi boo fa delloo ñu dellu ci seen taarix ci seen cosaan dañ lay wax ni la ñoom ñëpp ay mbokk lañu ki sanc kii moo jël kële nijaayu kële maamu kii la et cetera donc ça veut dire Sénégal ñëpp bokk benn bopp la bu ñu koy bu ko mag ñi wax da ngay foog ne ay caaxaan benn bopp la kenn mënu ko waxal ñaar dañuy wax benn gaal la nañu fexe ba gaal bi euh, bañ a suux mais bu fekkee ni ku nekk mi ngi mi ngi liggéey pour que gaal bi suux dafay am problème donc ñi yéenante jàmm yéenante jàmm nag mooy ñi nga xam ni tànn nañu ñeneen ñu dimbali leen ñi nga xam ni jox nañ leen ñu jiite ñu jàpp ni séddale wàll la wolof dafa ni séddale wàll la gis nga bu ñu la joxee nga séddale yow fexeel ba bul am parce que boo amul yow am nga wàll wàll bi mooy yow cër bi ñu la jox pour nga séddale comme naan nga baal ma bu ñu la joxee nga séddale yow la fekk ñu jox la nga séddale loolooy sa cër donc même boo ñàkkee ñàkkoo parce que jox nañ la pouvoir yow nga séddale waaye ñu jox la pouvoir nga séddale nga bëgg a sédd sa bopp ba pare da la ca des mu nekk lu tuuti nga bëgg a sédd loolu amatul yërmande donc ñu am yërmande ci suñu biir je crois que loolu bu ñu ko defee dina nekk pénc boo xam ne yenn ñaaw ñaawteef yu mel noonu bu fi jógewul tamit mën na wàññeeku euh, yàlla xam na ni fii ma ñëw nii léegi maa ngi jóge ci benn cours bu ma yore ay élèves professeur ñi nga xam ne bu ñu génnee dañuy jàngale ci lycée yi ma yore leen benn module bu tudd sociologie de l'éducation maa ngi leen di wax léegi ni boo duggee sa classe am ay élèves jàppal ni dañuy xool ci yow donc am na benn melokaan boo xam ni moom nga war a mel am na loo xam ni moom nga war a wax am nga fi nga xam ni fa nga war a teg sa tànk parce que dañuy xool ci yow waaye bu ñu demee ba ci yenn école ñu gis jàngalekat yi élèves yaa ngi leen di wër ñuy xeex di joxante ay kurfeñ parce que gis nañ ko fii ci image ndax élèves yooyu ñoo ñu leen di jàngal ñi nga leen di jox euh, model bu baax royuwaay bu baax nga dem assemblée nationale gis fa ñuy na mu gën a ñaawee nga gis ko ñuy di doorante dóorante kurfeñ ndax loolu modèle la bu baax ci ñi nga xam ne ñi ngi toog leen xool ñu jàpp ne ñoom ñoo leen war a jiite nga gis yenn saa yi boo xam ne day wax lii tey suba mu mel ni moom waxu ko woon génn ci dem di wax leneen nga gis koo xam ni day ànd ak kii tey suba mu mel ni mosul ànd kee lu nekk mu ko koy yàq gannaaw ëllëg kooku demaat mu demaat dellu waat di ànd ak moom moom la ñu tuddee transhumance amul lu ko gën a ñaaw donc loolu daf lay wan ni effectivement gone yi tamit dañ yar mooy nga jox nit ki modèle nga jox nit ki roy waaye loo xam ne bu ci royee dina téye ci lu dëgër dina xam fu muy teg tànkam dina xam lu muy wax dina xam nu muy defee